dama naan ndaw yi Pastef ñoom nee nañu Ousmane Sonko du dem procès. là dañoo dañoo catégorique foofu la ñu taxaw parce que dañoo jàpp ne lii parodie judiciaire la ndax ko gis dossier bi monté de tout pièces l' affaire dite Sweet Beauté muy caaxaanu kase la nga xamante ne euh, muy le PV d' enquête préliminaire muy juge d' instruction bi ñamu ñamu déglu ñëpp muy ay témoins seetal nañu Ousmane Sonko. certificat médical bi seetal na Ousmane Sonko nee na rapport sexuel amu fa sax sàkkatuma la ñu naan viol am na fa loolu lépp ab juge d'instruction mën ko jël tegee ko de côté ne moom loolu soxalu ko lan moo ko soxal mooy ordre ya mu recevoir te mu jóge palais mooy Ousmane Sonko mi na ko yóbbu procès jaarale ko fañ jaarale Karim Wade jaarale ko fañ jaarale Khalifa Sall ñun nag ndaw Pastef fi nee nañu dafa ñu jaarale ñooy kenn du ñu fa jaarale. gëm nañu justice gëm nañ suñuy institution waaye dañoo gëm ne institution dafa am ñu jubut ñu fa nekk ñu ñuy manipuler ñuy utiliser institution yi ngir faagaagal doomu aadama moo dañoo taxaw temm lu mu leen jaral jaral nañu lu ko raw. pour protéger Ousmane Sonko même bu dee ay bakken daf siy rot pour ëllëg Sénégal mën nañu ndaw yi maanaam ëllëg gu neex suñuy doom ëllëg mën a siggi mën a dund dund gu neex ba ñu mën a wax ne seeni papa ñoo ko fiy liggéeyoon def jaral nañ ko tey mooy nit ka nga xamante ne xamee nañ ko loolu ba mu génnee livre bi kenn joxul livre bi importance parce que nit ku mel noonu la nit ka nga xamante ne mën na wax tey dara xëy suba mu weddi ko nit ko xamante ne dañ koy fay poosam li muy bind ci poste bi la dépendre lu nekk ci poste bi rek noonu lay bindee euh, nu mu li mu wax ci Ousmane Sonko duñ si dellu c'est sa vie privée loolu ñu te ay caaxaani kese la li mu wax dara amut